madame la ministre Aminata Touré mo ñewon di la siyaare bi mi ñewit and ak sa njabootuk Bop ndax Serigne Abdoul Ahad Jahate mi mom Serigne Cheikh mom Serigne Amsatou mi ngi ni tok Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Abdou Aziz Serigne Bara Serigne Moustapha Mbacke mi mom Serigne Abdou Goudot ak sa doom yi bopp ji di sëñ Alaaji Bousso moom sëñ Xaadim buso di kenn ci moom sës ci moom rek mu ñëw nag ànd ak ñoom siyaare si la ci bis bi. wax na ni kat daan nga gis ni saa ne moom ak président moom ak président ñoo daan ànd di ñëw waaye ren nag ak fi tollu waaye jamono toll nee na waaye toog na toog xam ni daal munu koo muñ ndax bis bi bu bu bu dee sëriñ bi dafa ni képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bis bi dikkee nag ma sant la ci yàlla. kon moom war naa ñëw sant leen sëñ bi boromam rawatina nag sa digganteeg moom nee na da ngay way juram di sëriñam di xaritam di léppam te sa digganteek way juram la woon nee na te boobu ba tey gis na ni bët boobu rek nga koy xoolee kero bi nga xamante ni way juram bu jigéen ni wàcc na liggéey nee na nee na sa say say ndaw kenn jiituwu leen fa te nee na yitte yëg na sax ñaan bu baax a baax moo tax mu ñëw nag di ànd ak yow bis bi te lay ñaanal la nga yàgg bi loolu te ànd ak wér. mu ne xolam sedd na ci guy nag. mu ne fekk na lool rek moo la fi nekkal. mu ne naka jekk am nañ ci yow yaakaar. akuk doy loo. mu ne ak yéene ji nga xam ne amal na ko boppam ci yow. mu ne lépp wala rek moo ko jiitu. taxawaayu taxawaayu bopp ak sa jikkoy bopp. ak sa taxawaayu bopp ak sa jikkoy bopp. loolu lépp ñu ngi xam di la ko jàppee. mu ne loolu lépp mi ngi la koy xoolee di la ko jàppee. di la ko sant yi. di la ko sant yi bu baax. di la ci gën a gërëm bu baax a baax. di la ci gën a ñaanal bu baax a baax. a ñaanal bu a baax nag. suñu borom gën la cee gàttandoog tawféex. sa lépp gën a yomb gën a yéwén. sa lépp gën a yomb gën a yéwén. gën a barkeel mu ne la koy a dina xam ne jàpp nañ la wëllëgi te daana ko sàmm incha allah